ñu intercepté benn communication ay armateur turc wax ni dañu tardé on va arriver à Dakar avec du retard parce que dañ doon dimbali ay nit yu nekkoon ci benn bateau le bateau bas pavillon Sénégal et s'appelle le MS jola Wadi catastrophe rapidement nous avons autorité rapidement nous informer mais galo marine galo marine bi nga xam ne moom lañ jàpp ni moo war a sauver dix la génn poor bi nekk gaal boo xam ne yéex na yéex boo xam ne dina box box box box box box di génn poor bi waa ji am lu ko métti lool ne kii kii bu demee kan lay sauver le navire voie marine bi le navire en question 17 heures la yegg fi bateau bi suux <laughs> xam nga 17 heures ak heure bi bateau bi il s'est passé 18 heures de temps Comment on peut organiser des secours 18 heures de temps après un drame mais nous, nous ne sommes andi ci on n'est même pas une nation on n'est pas un état Nous ñun ay cuune lañ te jola bu la même chose parce que tiré wuñ ci enseignement tiire wuñ ci enseignement moy deug ngeen sank ma hmm. gal gi mu ngi suux à 35 km des côtes gambiennes so amone so amone un dispositif de la logistique ak une bonne coopération entre ñun ak Gambie intervention mënon na gëna gaaw bu doon ñun suñu wàllu un dispositif à Ziguinchor secours yi dina gën gaaw mais ma laaj tey xaw ma nag moo may bu est-ce que a un dispositif à partir de la Gambie est-ce qu'on a un dispositif à partir delta du Saloum est-ce qu'on a un dispositif à partir de Ziguinchor pour y nous vous fait fi parce qu'on ne sait jamais nous mun organiser très rapidement les secours parce que entre Dakar ak fi affaire bi faut sori est-ce que ce dispositif de transmission main à un problème yu nous? bu gaa yi wootee Ziguinchor ñu dégg leen bu gaa yi wootee Banjul ñu dégg leen bu gaa yi wootee Fatick Kaolack ñu dégg leen est-ce que am na affirmé wu ma dara damay laajte rek ci wàllu lu ñu wooyee renflouement bi moo dem na mu see bëgg taxaw dégg ngeen sànq ma ne leen am na ay dëkk yoo xam ne dañu newoon ñoom mun nañ ko renflouer mais gaal gi waru woon sax suux bay yegg aali ay daar ak ay gaam nee nañ toq nañ gaal gi quatre jours après drame bi nañ ko quatre jours muy flotter ñu téye ko di xaar instruction kenn joxu leen instruction ñu bàyyi gaal ga mu wàcc kon bu doon am na une volonté de sortir le ci quatre jours yi ko takkoon noonu génne ko doon na yomb lool ensuite bu mu suuxee ba dem ci suuf bi dëkk yi newee mun nañ fay lépp pour ñu renflouer ko bu fekkoon renflouer nañ ko kenn du ko waxati tey yaakaar naa ni est ce que épave sax desati na fa c' est ça la question léegi nag ñu ñëw ci jàngat bi li xew ci batalo joola sànn